you. ci ay jamono ci marché yi rekk lañu ko daan wutse waaye léegi ci tali bi la ëppee ndaw yi di faral di ko duy ci ay panier di ko jaay limong doon na fruit bu askan wi taamu lool fii ci corniche ouest bu ndakaaru ay ndaw di faral di fa taxaw seeni yoxoo ak seeni mbagg ñu yab si ay pañe limon du Dieye kenn la ci ñoom muy xamle ni jaam limon bi moom dafa xaw a métti moom soxna si bu nekkee yoon moom dafa métti ko parce que ñun depuis 2000 depuis 2000 ba léegi ñu ngi fii di jaay limon. ay jafe-jafe nag dinañu ko faral di dund ak clients yi ci kaw tali bi far ba di ñaxtu lu ni mel. waaw limon bi ñun ñu ngi koy jëlee jas quoi jas lañ koy dindee. waaw avant xam nga ne instant ni moom jas dafa sori da ngay jël plus de deux deux sacs citron mal plus de cinq sacs citron avant nga egg fii da jël ñetti taski mal ñaar taski après nga ñëw fii nii di leen wax kilo mille cinq cent ñu yaakaar ne yow instant nii da ngay for limon bi mal yow fi ngay jëndee limon bi moo xaw a yomb soo leen waxee mille cinq cent dañu la wax sax mille cinq cent dafa bëri quoi. boo nekkee responsable wala boo xamante ni am na li nga bàyyi sa kër xam nga li nga bàyyi sa kër boo ñëwee fii nii liggéey lu mu métti métti moom xam góor moo moom quoi. lek lek nga seen len ci kaw tali bi ñuy dàkkante ak woto yi lepp ci wutum client bu yoyé client sax di werante lu ci bari ak ñom ci walum prix. bu fekk na liggéey bi lañu cey dacc ñu ci bari dañu ko réré mbi waaw affaire auto auto yi mom il faut il faut mom nga toppaleen parce que amna auto yo xamanteni mom bu ñu ñëwee mom xam nga dañ lay wo rek ya, jarul sax ñuy dem bañu sori sax. dañ lay wo rek bu ñu tourné am nga ñu droité la woo la jënd li ñu bëgg jënd amna ño xamanteni nak ñom dañ lay bëgg dawlo ba nga sori kay wante liggéey bi lu mu metti métti mel na ni ñu ngi ci yëg seen bopp bu baax. waaw kilo bi wax dëgg yàlla bu njëkkoon ñu ngi jaay kilo 2000 léegi nag instant ni moom na quoi ñu ngi jaay kilo 1500. su fekkee pañ bi yëpp 5 kilos la 7500 lay naka quoi. instant bi ni moom wax dëgg yàlla moom li ñuy jaayee fii nii yëpp moom lu gën a dox moom limo bi moo gën dox parce que limo bi la ñu gën a am soxla. parce que yi am na ñoo xamante ni am nañu leneen li liñ koy defar limo bi parce que man am na benn gars sax bu ñëw fii daf ma ne yéen yaa ngeen di jaay limo de mais xamu leen limo xam nga man tamit ma jéem ko laaj pour am ci moom xam-xam quoi waaw léegi limo bi lan mooy njëriñam mu ne ma non du nii man dinaa ñëwaat fii ma wax la lan mooy njëriñam. ci njariñ woowee bari na ñu ci tàmm di faral di ci defar loolu ñuy woowee was.

du servir donc wàcc dafa ñëw indi benen benen benen façon bu tey tam nañ koy infusé infusé mooy doo togg da ngay jël ndox bi nga baxal ko après nga jël té bi sotti ci bi donc mom nak njëriñ yu bari waaw njëriñ yi mën nañ ci wax déjà ci ci té vert bi rek mën nañ ci wax lu bari euh, parce que bo xolé thé vert dafa am ay vertu yu yu mel ni euh, ay ferñent yoo xamante ñu ngi koy wooyee euh, antioxydant mm-hmm. antioxydant boko ko déggee benn molécule boo xamante euh dañ koy en fait euh, day li wax cancer euh, cancer yu mu jëm ci ak put euh, da da trop mais antioxydant antioxydant antioxydants tamit que ñi tam jël yu am antioxydants yoy non li wax maladie cardiovasculaire mais maladie nga maintenant day day jëm ci ak ak ak prévenir.

waaw njaay mi ñu ngi ciy sant yàlla parce que man was mën naa cee wax parce que was comme was bi nii bokk naa fi ko njëkk su ma ko njëkk def ci dakaar it xam naa ne buñ ne benn duñ ne ñaar ndax bi may ñëw fekk naa fi was bi ñu daan def mooy was bi Sëñ Saaliw daan defar mooy wasu jasmine bi ataaya bu oyof nga xam ne naanaa rek lay am mais man comme was bi am limon nii ak citron la yooyu boobu maa ko créé fii yi wër ko eh, te ci di bàyyeekoo fu ne naam sax ku ci nekk ak la was di def ci yow ak yëg-yëg ya nga cay am.

parce que li li lay wacce choono nga choono so sonné ni ni was bi so ko nané ngay ni gua machine à chaque instant fa laa ñeu jënd was parce que le matin aussi suma ndéké ndékkee mom pare jënd parce que daf may gëna jox ci cawarte quoi. ci ci waxté wala cium graisse gi ci yaram gi pap gay ab coach la manam day tagat yaram gannaaw ba ñu daje ak moom ci corniche bi muy doxantu mu ñuy xamal njariñ yi nekk ci was ba tax mu koy digal ndaw yooyu le muy tàggat was bi dafa di loo xamante ni nit ñi dañu dañu xamul njariñam mais ci ñàkk xam njariñ bi dafa fekk duñ ci waxtaan tee bi dafa di loo xamante ni tey boo gisee ko xam dafa am poids surtout bëri graisse bu koy utiliser après chaque repas day day doon loo xamante ni lépp lu mu fa fekk muy euh, tilim tilim da koy raxas donc raxas boobu mu koy raxas euh en même temps da koy dégraisser sama client yu bari ma dan daan ndol ci mbirum euh, sport bi ñooñu il faut que nga sóor benn affaire bo xamanteni ni bu dee ñu ki utiliser tout le temps yenn lekk yu diis yi mu am ben affaire bo xamanteni ni dina ci mëna jappalé pour ñu mën am résultat bi. docteur Abdoulaye Ba di ci yok ni. euh vitamine C bi ñu doon wax sànq te mu nekk ci citron mom day favoriser liñ nane euh, métabolisme des des protéines parce que yaram buñ koy tagat muscle yi dañuy développé wu. Mm-hmm. bu wu normalement bu ni euh, am na ku koy ku koy suivre sur le plan du sport Bon, mm-hmm. am ku koy suivre également sur le plan de l'alimentation. parce que tay alimentation représente 80 euh, des des performances yi nga xamante ni mom la nit di def sport bëgg am. boo xoolee suñu lekk amna ñaari ña ñetti mandarga yi suñu lekk dafa bëri suukar day niin te des saf xorom donc ñett yooyu surtout gras nak nag tay ne moy moom mooy li ñu lekk lu ëpp rek suñu yaram soxlo ko da koy transformer def ko gras def ko graisse fa la koy dugal ci ci biir bi ci yenn yenn partie yaram bi euh fa lay dugg donc dina permettre tay niki ki euh a mën euh mën xex mën xex graisse boobu noonu was bari na façon yu ñu koy defaree jaaykat bu ci né ak recette am ku ci mel ni Abdou bari na ferñeent yu mu ciy def. xamoo sax léegi du am ataaye mais kenkiliba lay am ak citronnelle ak ngun-ngun ak naana ak limon bi nii. kenkiliba dafa baax man sama sama war damay tonk kenkiliba ba mu ñor ma teg ko nee ma jël ndox kese jël na kenkiliba bi nettoyé kii ko ci mélange ko ci ba mu lese ma suukar ko te xam nga ku ne xam na ne citronnelle nee day raxas deret ngun-ngun dafa baax ci xeetu bët ak xeet yooyu naana aussi noonu après citron bi doog a ñëw. xam nga xam nga cinq ingrédients ñu ko defaree yëpp dafa baax dafa ci ci jamonoy lañu né feebar bi di coronavirus lembé adina waye gannaaw ba kër docteur xamle ni dafa and ak grippe. ci walum grippe le nag was wi am na ci solo lol. buñu sukkandiko ci Abdoulaye Ba. déjà il faut savoir que euh, vitamine C dafa dafa am propriété revitaliser yaram donc niki bo xolé bu nekkee dafa dafa grippe day day tay sax. Euh, day tayal euh, bu tayalee également euh, du du sawar trop vitamine C bi day permettre loolu mais il faut savoir également que euh vitamine C euh wala même yenn saa gingembre bi nga xamantene mom moom def ci ci was bi dafa am ay propriétés antivirales bo tegee propriété antivirale moy day xex virus yi nga xamantene mom la suñu yaram di moy dugg suñu yaram té té té euh té mën ñoo jural jàngoro mm. donc mélange boobu non tay day permettre suñu yaram virus virus bi nga xamante ne moom mooy moom mooy moom mooy andi grippe euh, mu mën ko xeex. mbur yàlla may nañu ko am nañ immunité bu dëgër immunité boobu nag li koy ñoŋal mooy lekk bu sel lekk bu sell euh, mooy une alimentation vraiment équilibrée yaram bi bu fekkee dëgër na rek dana mën a dana mën a jànkuwanteeg feebar yu bari te yaakaar naa ne que coronavirus ñu ne dañuy sant yàlla parce que li mu def yenn dëkk yi yeggagul fi nii. bien que nak duñu duñu duñu duñu wàccee suñu suñu suñu kàddu ci loolu ci wax lu bari di wax sénégalais yi li tam ne mo lu wa keur docteur di wax ci walum prévention ñu ñu respecté wu mu ci yok ni lu ëpp lu ne day andi gàllankoor ba tax na muy ñaax askan wi bañu ñu bañ cee ëppal. donc euh, euh mëna ne que genre euh, bu ëppee day day andi ay ay excitation nekk di lox genre mel noonu comme comme comme café bu bari euh yoy c'est important ñu xam ko donc ñu bañ si abusé trop. was benn tee bu askanub Sénégal tamu lool ñuy faral di ko jaay ci mbedd bi comme lu ci mel ni café Touba dute wala ataaya ci defar wa dafay am lu ci mel ni kénkeliba nana sitronel ginjeer ñu koy boole ak fruit bu am solo bii di limon. was ëmb na ay ferñent yu bari te baax ci wergu yaramu doomu aadama docteur yi